tey dama ñëw fii ñëw si sama école fi nga xam ne falaa defee début sama jàng fii nekkoon collège fi ma defee CM balaa may dem euh, jàngi feneen collège bi tey moo nekk lycée donc mu ñëw fii dafa noon noonu mbégte ci man ak kontaante donc dama ci kontaan pour ñëwaat fii te xam nga ñëw bi lu tax ma fonk ko parce que dama xamné suma jaar école du mën li de mën tay motax ma pour la commune il faut ñuy l'éducation. parce que éducation motax ñun ñu mën donc bëri commune bi buñ ko bolé day lu am donc vraiment chaque fois damay mën a éducation ma def ko. Euh, bokk euh, gouvernement depuis ay mu ngi def pour ñu xeex mbas mi ñuy tuddee Covid 19 ñu ngi koy xeex depuis ay weer donc euh, ñun aussi dañ ci war a dugal suñu loxo moo tax après bu école ubbiwee ñu ne léegi comme que gouvernement bi def na contribution ñun nañu ñëw yokkaat ci lu ñu mën parce que xam nga fii ñoom dinañ jàng ba fii je pense ay septembre donc dinañ soxla ay produit ay masques yooyu moo tax tey ñu ñëw indil leen ay masques nga xam ne lycée bi dina ci am mais ñetti CM bu nekk Njaaraw CM bu nekk Kuluk ak CM bu nekk Njagañaaw tam dinañ am. donc tey ñu ngi indi 2000 masques euh, indalé aussi ay gel alcoolique indalé ay eau de javel ak ay madar savon liquide pour luñuy ñuy sen sen loxo donc loolu lañu indi tay, di fàttali rek né avant tay jot nañu contribuer ci fond fond fond de riposte bu ñu nekkoon fi ci commune bi Euh, fonds bobu jëndoon ay produits tam ñu ñu distribuer ko ci commune bi jot nañu également def euh, contribution aussi def don ay lave-mains ay savon ak ay gel ñu joxoon ko poste de santé yépp gendarmerie lieu public yépp fi nga xam ne day am ay rencontre euh, jotoon nañ également appuyer les jeunes yi nga xam ne association des jeunes pour le développement de Ndiaganiao dañu def initiative def benn comité de de veille et de vigilance ñu joxoon leen ay thermoflage ak yooyu parce que ñoom dañu taxawoon képp kuy dugg ci biir ñu contrôler la xool vraiment jox la ay masque conseil la jox la gel ak affaire yooyu jotoon nañ leen appuyer donc tay dañu ñëwaat rek pour vraiment contribuer waat di sensibiliser waat tamit parce que xam nañ ne mbas mi génnagul Sénégal donc dañu bëgg nit yi continuer di rek respecter mesure barrière yi pour ñu gën ko mën a xeex mu bañ a law donc mu mu yem fa daal donc loolu moo taxoon tey ñu ne dañuy ñëw fii indi produit yi. waa coow loolu moom damay commencer wu sama population nga xam ne mooy waa Ndingler Euh, di di di mettitlu aussi euh, coow bi ak coono bi yëpp nga nga xam ne vraiment mu ngi ci am di wax ne yàgg na ñun yàgg nañ ci dox yàgg nañ ci wax yàgg na balaa nit yi di ko dégg nii ñu ngi ciy dox bu yàgg mais ci suuf ku nekk dafa am li ngay liggéeyee ci loolu tam liñ ciy dox depuis le début ñu dem ci demoon ci sous-préfet Fissel nga xam ne maa ko waxoon pour ñu ñëw waxtaan ak moom ànd ak population yi dem maire nga fa woon euh, lu ñuy waxtaan am ak suuf ak préfet du département de Mbour ak waxtaan ko même ak promoteur bi moo nekkoon ñun dañu bëgg nga paysan yi nga la doon béy ñu continuer di ko donc loolu mooy li nga ne gouvernement bi officiellement na ci parce que président yónnee na fi ministre Fofana ñëw na fi waxtaan population bi ñaari yoon ñu ngi ci li te yaakaar naa buñ ci génnewee njëriñu population bi moom lañ ciy séentu te moom lañ ciy dox te yaakaar naa sax dañu yaak dañu bëgg ñu buñ ci génnee population yi am lu kawe seen njot lu ëpp sax lu ñuy lu ñu lu ñu nekkoon nii di def si si suuf si donc loolu daal mooy suñu tànk incha allah yaakaar nañ ne yàlla dinañu defal ici euh, dina ci defal xéewal daal. waa loolu moom vraiment xam nga Sénégal yi dañu am cosaan dañu am ay aada. li nga xam wax ju ñaaw bokku ci li nga xam ne euh, féewaloo nit bokku ci li nga xam ne sutura ci lolu je pense que valeur yoy dañ ko comme dañ ko wara continuer diko diko sam vraiment diko jëfé di man di bañ di yé fitna di indi problème ci dëkk bi donc bëgguma juger nit mais vraiment lu may bëgg moy nit yi delluwaat seen xel ci suñu cosaan vraiment di wax lo xamné kuko ku dégg di nga rafetlu wala kuko gis tam di nga rafetlu donc ñu moytu vraiment genre dénigrement ay euh, voilà ay violence sax yoyu rafetul té ñun suñu njiit kenn mosu ko dégg ci yoyu té dañu waron xol ci mom référence vraiment di top mom nu muy doxalee moom liggéey moko soxal kenn duko ko dégg ci ay waxu caaxaan wala ay yenen donc euh, ma ngi sante yalla d'abord ci euh, ci bu ma mayee ma fekkee lu melni war naa ko sant bu baax bëgg tamit bëggoon naa tamit euh, ci turu lycée bi yëpp ma gërëm docteur Tening Sène ci geste bu def nii parce que geste bi mën nañu ne mën nañ ko inscrire ci cadre son combat pour le développement de la localité chaque fois quand il s'agit de d'éducation bon du hésiter benn yoon day def et c'est vrai que le courrier commence depuis le 25 mais le yi dañu continuer ba mois de septembre Et il faut un matériel pour respecter les mesures barrières ba mois de septembre donc matériel bu ñu andil fi matériel yi ñu partenaire et mayoon ak état yi ñu ñu courage tax na ñu gën a ñu gën a am euh, tax na ñu gën a ñu gën a wóolu daal en quelque en quelque sorte tax na ba ñu ba tiitatuñu parce que au moins matériel bi dina tax ba ñu mën a ba mën na couvrir besoins yi ba mois de septembre donc donc ngi ko ciy gërëm bu baax a baax. donc euh, c'est un geste très noble parce que comme ni ma la ko waxee sànq euh, éducation élèves boo gis fii ci ginaawam am na am na famille ñu yaakaar ci réussite am bëri nañ ñu ñu espérer mu réussir bëri nañ donc boo boo defee dara ci éducation bi dafa mel ni population bi yëpp nga koy defal donc nous avons ici plus de quatre mille euh, élèves ku ci nekk sa famille y a derrière une famille donc boo defee geste boo xam ne chaque élève dina ci gis boppam c'est toute la population de Diaganiao kii ngay ngay dimbale donc euh, Euh, c'est vrai que am na partenaires yoo xam ne euh, réagir nañ mais également ñuy ñaax koo xam ne mën nga ñu dimbale rek nga dimbale ñu parce que boo dimbalee école bi dimbale nga population bi geste bi vraiment mën nañ ko dugal ci ci ci euh, mën nañ ko dugal ci ay moom ay gestes yu bëri yoo xam ne mu ngi koy def ci wàll pour pour le développement de Ndiaganiao vraiment ñu ngi ko ciy gërëm. you.